Petrosen organisé na ab ndaje ngir si siiwal li ñu jëlee ci ab étude boo xam ne njëriñu gaz la ñu ciy gën a wone. pour nga def genre projet yoo xam ne ay mille milliards nga si def dafa am étude yu bare yoo war a def avant ngay song liggéey boobu si études yooyu nag bi si am importance aussi mooy nga xam boo amee sa production kan nga koy jaay loolu moom la wax étude de marché étude de marché boobu nag moom nu tey moom na nu doon restituer bu fekkee nit ñi dañuy wax koom-koom bi wala juddu si ay pétrole bay gaz bi koom bi mi ngi jógee surtout bu fekkee ne ñun ñoo ngi valoriser cest à nekku nekkuñu fii rek di jaay sunu pétrole ak yooyu wala sunu gaz mais ñun defal ko fii. muy étude goo xam ni. ñu ngi wane itamit naka la ñu mën a tabaxee usine. bu urée di benn ci xeetu engrais yi. boo xoolee dëkk yu bare bu ñu amee gaz du ñu am phosphate. bu ñu amee phosphate du ñu am gaz boo xoolee kaaw Maroc boo xoolee kaaw Algérie mais ñun dañoo am chance ñu am gaz am phosphate donc boo boolee ñaar yooyu on a déjà ñaar yi nga xam ni moom la ñuy wax engrais composé muy N beeg P bi K bi nag moo ñuy dese su ko defee bu nu amee usine urée boobu mën nañ si boolee aussi yeneen usine yoo xam ni dañuy def engrais composé loolu yëpp day yokk koom-koomu Sénégal. muy jàngat goo xam ni ay junni milliards dina ko jur. investissement bi ñoo ngi wax un point cinq milliards de dollars muy l'équivalent de mille deux cent à mille trois cent euh, euh, milliards de dollars de euh, francs CFA donc muy projet bu mag boo xam ni Sénégal am na ko boo nga xam ni dañu bëgg remplacer lu ñuy tey li ñuy importer mooy engrais yi ñu produire ko ñun ba mën a exporter. te loolu lu nu ko mën a dimbale rek mooy parce que effectivement am nu gaz am nu yaakaar ni année prochaine si premier trimestre euh, deux mille vingt cinq daanu mën a signer décision finale d'investissement bi su ko su boobaa ñu yaakaar en deux mille vingt neuf ñu mën a am usine boobu. njàngat gi nag seen ànd na ci ak royaume nii usine mu engrais boobu di urée ñoo ngi koy xaar fii ak deux mille vingt neuf